à un moment donné ñun sacrifice yi ñu def ci yeewu bi yëpp. Mhm. un il fallait s'en tenir à ce qu'on dit waxoon naa ko fii benn invité bi nga amoon bi représenté waa taxaw yi fi la femme la qui mhm. représente. Euh, Ngoné je voilà ma ne ko en aucune façon ñun ñun connaissant. il il était question de partir faire des élections sans nos alliés sans que ñu réhabiliter Khalifa. ñun loolu la ñu xamul on n'aurait jamais fait les autres ils sont prêts à aller aux élections sans vous mais yéen nag du ngeen ko war a nangu moo tax ma ne vous n'êtes pas c'est là où les Sénégalais. voilà àtte dëgg xam na nii lu ñu def du dëgg. parce que dans cette situation ñoom xam nañ ne. ñun valeur yi ñu yi ñu épousé il n'était même pas question di ànd ak xalifa di xeex ba ba fii ñu ne du du boo doon candidat ñun tranquillement ñu dem kër yi il n'en était pas question dans ñun xam nañ suñu bopp c'est pourquoi ça nous a fait très mal maintenant nag euh, que les gens disent maintenant kii jël na yoon mais li logique la depuis un bon bout de temps si vous suivez l'actualité mais ñëpp waroon vous pensez que c'est pas combien parce que yow dem nga. parce que non ñu essayer un candidat. quest que la taxawu a fait qu'est-ce que la taxawu a fait concrètement pour à nos côtés ñun qu'est-ce qu'on n'a pas fait amul fu ñu taxawul amul fu ñuy xeex amul fu muy méttee fi nga xam ne le président Ousmane Sonko a dit il faut réhabiliter Karim Wade il faut réhabiliter. Euh, Khalifa Sall depuis que le président Sonko a été écarté lan la ci taxawu def. lan la ci tax foo wax lu dëgg parce que li Khalifa waxoon noonu rek dem si kii bi ne woy il faut la ne jeex na maintenant yow terewu la à l'assemblée tu fais passer des gens nga gérer sa bopp euh, dans des pourparlers ba nga ñëw bokk nga maintenant il suffit de dire ça pour qu'on te verse l'électorat de Pastef mais quand il faut qu'on soit sooy ànd ak ay nit ànd nawle mhm. da ngay ànd ak ñoom jusqu'au bout et dans cette histoire kenn mënul wax ne le discours ou bien euh, de de du Pastef a changé Pastef mosul changer discours mosul changer trajectoire ba ngeen dékki dékki-jékki yi ñoom ngeen dégg ay nit génn j'en j'en veux pour preuve. Mhm. Abba ah Mbaye j'en veux pour preuve le maire le Diaz yéen ñëpp vous n'êtes pas surpris le matin en vous levant mhm. et que vous les dire des choses lan la Pastef xëy wax rek mu jaaxale rien c'est là où le euh, Barth moo ko waxal boppam il a été reçu par le président mhm. mais est-ce vous une bonne euh, une bonne le président Macky Sall su demee ba jël un adversaire politique bi nga xam ne ba motul sax ay quelques semaines ñoom ñaar euh, du ñu wax ñu dem ba mën a toog waxtaan mu ne man maa ne du ma dem pale du dem pale mu jaral ko moom mu ne du dem pale mais man dinaa ko fekke mhm. mais ils sont dit des choses dites-vous qu'est-ce qu'ils se sont dit ce qu'ils se sont dit nag moo andi attitude yi plus tard il faut qu'on les reconnaisse ils les avaient garanti qu'ils pouvaient participer mais qu'il y quelqu'un qui pouvait peut-être ne pas participer le passif on pouvait pas l'accepter